sant sénégalais yépp ñi nga xamante ne bi ñu woote ne kaay leen ñu defar suñu yoon te ñu bëggee mu taxawee ak ni ñu bëggee mu doxe ñëw nañ wuyu si ñu ko mën ñëw nañu déplacé wu ñëw ba jam ñaajo pour bokk ci liggéey ñeneen ñi ci des fi ñu toll mënuñoo déplacé wu jël nañu temps dem ci plateforme jubbanti bind fi li nga xamante ne moo noonu lañu xalaate noonu la yoon war a doxe bi waxtaan jooju weesoo te ñu ciy jaajëfal ñépp ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci commission yi nekkoon ci sous commission yi ñi nga xamante ne ñooy commission scientifique bi ak ñi nga xamante ne ñépp ñoo ci jàpp après pour tënk li lépp ci njiital professeur Babacar euh, Guèye di leen wax na rekk liggéey gii ngeen liggéey du bokk ci rapport yi nga xamante ne dañ koy joxe ba pare dugal ko ci claque ci ci tiroir yi ma bëggoon rek fàttali Sénégalais yi man Bassirou Diomaye Faye président de la République du Sénégal xam naa fan laa jaar ba toog fii du ci pexe du ci amul benn pexe boo xamante ne ut naa ko pour toog fii donc du ma ut pexe pour des parce que pexe des loowul ful nit pexe taxul toog fii lenn rek laa amee sénégalais yi ci temps bi nga xamante ne moom la ma yàlla natal ci fii ma toog mooy naka laay def ba lépp li nga xamante ne mën nañ ko soppi bu ma fi doo jege ñu def ci jéego yoo xamante ne ku ci ñëw tamit loo ciy compte na fekk ne sori na kon lu ngeen déggoo ci rapport bii lu ngeen ci déggoo te mu nekk loo xamante ne ñi nekkoon ci jam euh, ñaajo

L'assentiment du ministère des Finances et du Budget est important dans le cadre d'un cadrage budgétaire que lui seul est à mieux même de valider sous la houlette du Premier ministre et sur ma validation sous ma validation kon mën ngeen ne liggéey gi coono gi du réer incha allahu rabbi gi du ci réer li ci gënoon bari coow te ma am ci lu ma xaw sax mooy le conseil supérieur de la magistrature ñu noon may jàppoon mooy le point bi nga xamante magistrat yi ñoo koy euh, défendre il m'est revenu à travers les débats et de ce que j'ai pu entendre dans la presse ci mën ci que magistrat yi d'accord ñu pour président de la république des ci conseil supérieur de la magistrature d'abord de ma biral je ne tiens ni à rester ni à en sortir je suis totalement neutre par rapport au conseil supérieur de la magistrature bu les arguments du plus grand nombre ont plus de poids par rapport à la pertinence je ne resterai plus dans le conseil supérieur de la magistrature et je n'en fais pas une obsession mais je pense que l'État magistrats, magistrat yi bëgg président ça mérite d'être écouté parce qu'après tout c'est eux qu'on veut qu'ils soient indépendants c'est la seule réserve bi nous avons mais même si nous avons dégloo te li ñu teg ci sama nopp man donc je ne tiens absolument pas à rester là-bas mais je ne tiens pas forcément à en sortir bu Je ne nañ sans vouloir entraîner une doxa par rapport à ma présence au conseil supérieur de la magistrature je ne resterai pas donc lii la mu dès la remise du rapport ci un anam yi ku mu au cour constitutionnel comme mu juge des libertés de la détention comme mu modernisation toutes les réformes qui n'ont pas d'incidence financière sur lesquelles nit ñi déggoo nañu ci mën commencer dès demain les travaux pour pour pour pour pour pour euh, pour matérialiser les réformes. yi nga xam ne dafa war a ay dépenses réew mi dafa am fu mu toll jar na ñu waxtaanaat ak ñu xool tamit ci application réforme yépp naka lañ koy absorber de façon douce pour que système yi nga xamante ne ñoo war a réformer wu mën ko mën a mën perturber wu trop donc au delà de ça awma ci benn problème li tax ma am taxawaay bi c'est parce que di ngeen gisaat ay yeneen assises ci yeneen domaine le système politique ci la bokk le système de rémunération ci la bokk ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne dafa jot ñu taxaw seetlu est-ce que ñu ko doon doxale 1960 ba tey est que dox na bu doxul lan moo war a tax ñu continuer di wéyal li ñu xam ñu ngi koy doxal depuis 1960 doxul ñu changer ko réforme yi n'a nar a def nii bu ñu ko appliqué ñu dem ba ca kanam kon nous peuple sénégalais ñu gis ne que réforme yi par rapport liñ ci doon xaar kat amuñu ko ci ñun peuple sénégalais ñooy toogaat ne nii lii lañ yaakaaroon lay jur waaye jurul loolu dañ koy changer nos propres réformes ne peuvent pas nous lier pour l'histoire bu ñu demee ba ca biir ñu toogaat dans le cadre d'une démarche inclusive constructive et conscientielle arrêté waat leneen lu wuuteeg lu ñu arrêté woon on avance et c'est à ce rythme là et dans cette méthodologie-là, de façon pragmatique, nous ñuy finir par un système bon. de mon point de vue si nous que le respect si avons, de la part des autres parce que les autres nous respectent beaucoup en tant que peuple sénégalais Nous avons parfois des turbulences c'est ces turbulences-là qu'il faut désactiver pour qu'on puisse atterrir tout le temps de la même façon qui fait qu'on force le respect aux autres kon maa ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax di leen euh, ñaanal ngeen delluwaat ci jàmm ci seen njaboot di leen dig daje ci lu yàggul dara pour ñu xool les modalités et le calendrier de mise en œuvre de ces réformes pour que le plus rapidement possible ñu gën a consolider suñu système